wa radiallahu taala an asaabi rasulillahi salallahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwata illa billahi alali alazim yaa himmata cheikh waxduri lana bi hada almahdari wal tatifi bi nazaratin taati lana bi wafari démb mu ngi doon jàng mu ne ñu wa taqullaha ragal leen yàlla wa yuallimukum tey xamal leen allahu yàlla de mu ne bunteb ku bëgg xam-xam bunteb xam-xam a ngóog boo buggee am boo buggee xam-xam mu ne na nga ragal yàlla ci li ngay def nanga nga ragal yàlla itam ci sa bopp su ko defee boo ma boo ragalee yàlla rek yàlla dina la may xam-xam mu ne Shaafi ñëw na ci sëriñam bi ko daan jàngal ne ko man daal damaa mënut a dégg dara mu ne ko boo bëggee dégg bàyyil mooy yàlla de ndax xam-xam leeru yàlla la du ko may koo xam ne dafay caaxaane boppam de bon nag buntu xam-xam mi ngi noonu xam-xam li ñu am yépp doomu aadama xam-xam yi mu am yëpp dem ba jàng nañ wa maa utiitum min al ilmi illaa wax na jàng nañ wa ñuutal xikmata faqad utiya xayran kasiran moom rek la mel la leene xiw wu kawe la lu bëri la waaye xam-xam dafa wax ne wa maa utiitum min al ilmi illaa qalilan illaa qalilan ci yàlla waaye ci ñun liñ gis ci xam-xam bëri na lool su ko defee nag xam-xam boobu nga xam ne yàlla rek moo koy jàngal nit ndax allama bil xalami allama al insaana bon yàlla moo xamal doomu aadama waa allamaka maa lam takun taalamu moo la xamal loo xam ne xamoo ko woon bon nag boo buggee jël xam-xam boo xam ne xam-xam bu dëggu la te xam-xam buñ koy wax ñaari xam-xam ñaari baras la xam-xam boo xam ne mi ngi aju ci àddina beeg li ci ajoog defar àddina beeg liggéey beeg mbay meeg ingénieur yeeg yépp loolu yëpp boo demee xam-xam la waaye yàlla dafa wax ne yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia li aju ci àddina bi yëpp boo demee li ci nekk ci xam-xam xam nañ ko wahum anil axirati gaafiluun xam-xam boo xam ne nag moo leen di yóbbu tere leen ci àlaxira boobu moom xamuñ ci dara xam-xam dañ cee sàggan faalewuñ ko xam-xam boobu nag lum li xam-xam bari bari yépp am na njëriñ pour doomaadama aadama xam-xam bi aju ci àddina ñu ngi ciy doxalee suñu àddi ñu ngi ciy doxalee suñu àddina ñu kii baaxale suñu àddina xam-xam am na njëriñ pour doomu aadama waaye xam-xam boo xam ne nag def lay jëriñ fii ci sa àddina jëriñ la ëllëg ci sa laaxira dégg dëgg looloo tax ñu ngi wax xam-xam te xam-xam boobu mooy xam-xam bu lay jegeel yàlla rek xam-xam bu lay xamal yàlla loolu mooy xam-xam de bu ko defee nag xam-xam boobu boo ko bëggee am ci sa xol mu sell ci sa xol nekkaleel yàlla rek boo demee wali yàlla yi nga xam ne ñu ngi dund dee nañ waaye ba léegi ñu ngi dund lu leen may dund googu mooy ñoom ñëpp dañoo xam nu ñuy wutee xam-xam ci yàlla ñu sóobu yoon woowu su yoon wu kawe yoonu jëm jàng jël dem jëli xam-xam ci yàlla démb waxoon nañ xikmatu mooy lan mooy xam-xam boo xam ne dëgg-dëgg nit ci yàlla rek la koy jëlee jëlewu ko feneen kenn jàngalu ko ko ndax mooy lan leer bu bàyyeekoo ci yàlla tàbbi ci xoli jaam xoli jaam boobu leer gi di tàmba di tàbbi su fekkee soxla woon a xam-xam dafay jël xelam bi euh, jàkkaar la ko ak péyib yàlla ba su ko defee lépp loo xam ne toq na jóge ci péyi yàlla ba dafay dugg ci xel moomu bu duggee ci xel moomu xol bi téew ko su ko xol bi téye nag moo tax doomu aadama yi bu ñuy wax ak nit ñi am na ñoo xam ne bu ñuy wax ak nit ñi nit ñi dañ leen di déglu bu baax ndax lan lii ñuy wax ak ñoom jógewut ci ñoom ci yàlla la jóge moo tax ñu ne wax bu jógee ci xol ci xol lay dugg wax bu jógee ci làmmeñ ci làmmeñ ci nopp rek lay am de wax boobu nag nga xam ne dafay jógee ci xol jëm ci xol waa ji koy wax sax bu ko waxee ba pare fàtte na ko ndax moomu ko yàlla ko sotti rek ngir mu sot mu jottali ko jaami yàlla yi jeex na bu ko jaami yàlla yi jotee rek loolu mooy mission moom jeex na su ko neexee mu fàtte ko su ko neexee mu bañ koo fàtte waaye nag loolu mooy xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xam bu dëggule mooy xikma lu la lu la booleeg yàlla lu la dëgëral ci yàlla lu la may nga xam sa borom ndax nit réeree boromam rek mooy tax mu ñemee mu mu ñemee yu yu safaan yi muy def waaye boo xamee sa borom dëgg-dëgg da xam ne borom bii du borom bu ñuy kafat de li wax rek ngay def boo ko defee baax na boo ko deful nag boo sànq ëllëg yaa sànq sa bopp de mu ne wa taqullaa ragal leen yàlla wa yuallimukum ta xamal leen laahu yàlla seen ay maslahay àddina ak seeni i maslahay àllaaxira ëllëg de wallaahu yàlla alimun aji xam la mu bi kulli shay'in ci lépp def de yàlla moomu nag ngeen xam ne moo leen wax ne ragal len ragal len ma tamal xamal len yàlla momu xamna lu nek lu nek rek yàlla ndax lu nek moko amal de alaa yaalamu man khalaqa wa huwa latiful khabir lépp la xam xamna nit ki xamna li aju ci nit ki xamna adina bi li aju ci adina bi yi xew ak yi xew ak yu sew ak zahiran wa batinan lépp lo xam rek yàlla bind nako yàlla xam nako de motax mune bo ngeen jange ba xam yàlla bu ngeen jange bu ngeen ragale yàlla yàlla dina len xamal de wa in kuntum dem nekk ngeen ala safarin ci dox walam tajidu xamu leen katiban aji bind fa war na joxe e, can e, war na joxe tay la de su fekkee nag waxoon na démb booy leble wala bu ngeen di la jaayante na ngeen jaayante ci kaw bind ko ngeen bind ko ndigal loolu nag du ndigalu farata ndigalu jàngal nit rek mu xeewu xam lu muy doxalee àddinaam la du farata Euh, waaye ci mën duub yi la bokk ndax jàngoon nañ keroog ne xeeti ndigal yi nga xam ne am na ci alxuraan am na loo xam ne ndigal yi farata la aqimu salaata aatu zakata euh, suumu ramadan loolu moom ay farata la waaye am na ndigal yoo xam ne nag daf lay jàngal rek naka ngay civilisé ci àddina bi naka ngay mën a doxalee say affaire naka ngay mën a eewoo ba kenn du la nax de mu ne nag su fekkee yéen a ngi tukki nag amu leen bindkat boo xam ne dana leen bindal li nga xam ne mu ngi jaar seen diggante ci yëflante jaayanteeg jëndanteeg leblen leblanteeg yu mel noonu su fekkee amu leen ku ku la bindal fa rihaan war na joxe eh, tay la de bu boobaa nag joxe tay la rek am ma tay la lii eh, bu nga lebal ma bu boobaa nag jël tay boobu xaayut de ndax yàlla santaane la ko maqbulatun bu de buñ ngëpp tay boo xam ne nag ki nga koy tay la daf koy téye ci loxoom loolu loolu la yàlla santaane ci santaane maslaaye àddina ak doxal sa àddina ak xam noo koy doxalee ba bu la kenn trompé bu la kenn nax fay na mi na ndéem hóolu na baadukum lenn seen baadan lenn fa li dina jox na jooxee allazi kaaka wutu mi na wuteef na ko wut wóolof na amaanatu ak kóllëreem de su fekkee nag ki ngay lebal óolu nga ko óolu nga ko bu baax amoo ci moom sikk li ma koy lebal dina ma ko delloo mu ne nag bu boobaa jarut ngeen di joxante ay ay ay tay la de bu boobaa ki nga xam ne óolu nañ ko ba lebal ko rek moom itam na óolu ba delloo alal yi nga xam ne lebal nañ ko ko de wala taqillaa na ragal yàlla rabbahu boromam te kooku itam na ragal yàlla mi nga xam ne mooy boromam de wala tegtumu bu leen nëbb shahaadata seede ga su fekkee oo nañ leen ñëw leen seede ñëw leen uyu te bu leen nëbb li nga xam ne xam ngeen ko de wa ma ñëktum haa ku nëbb na mu ko fa na ko moom na aji bàkkat la xalbuhu xolam de képp koo xam ne nag oo nañ la seede nga ñëw li nga xam nga bañ koo wax wax leneen nga nëbb nga seede si nga xam wax leneen yàlla mu ne kooku xolam mi ngi bàkkaat de xol bu bàkkaat nag ci bàkkaat yi gën a màgg ci ñeel jàmm yàlla yi la ndax doomu aadama yàlla nga ko wax ne man jaa bil xasanati fa lahu ashru amsaaliha jàng nañ ko ba sonn boo defee benn fukk la lay fay doomu aadama su fekkee yéene na def lu bon defu ko kenn du ko bindal dara su fekkee yéene na def lu baax defu ko dañ ko ko bindal ne def na lu bax loolu ne def na lu bax loolu ci kaw yéeneem su fekke nak yene na lu bax def lu bax yàlla dina ko bindal fukki yoon su ko defé nak malaaka yi nga xamna ñoo sekk doom adama ki yeng ci yor ki yeng ci chamoy ki nek ci yor mo ilif malakam chamoy mi su fekke doom adama def na lu bax mu ne malaaka mi nek ci ndeyjoor yor gawal binduko gawal bindal li def ci li def ci lu bax yeb mu gaaw bindal ko ko bu ci nekk mu fayal ko benn bu nekk mu fayal ko fukk malaaka mi ci càmmooyam malaaka mi ci ndeyjooram mooy kilifaam bu fekkee doomaadama def na safaan du ko tëb rek bind ci saasi bu ko bëggee bind mu ne déret may ko tuuti yaatal ko mun naa am mu su ko defee dinañ ko yaatal lu mat juróom benn waxtu yoo xam ne duñ bind bàkkaat boobu su fekkee juróom benn waxtu yi jeex na te tuubu ko nag su ko defee ñi ne ko bind ko malaakam ndeyjoor mi ne ko bind ko benn yoon suñu waa ji daal sàggan na lool su ko defee nag boobu par benn nit lu bonam benn yoon nañ ko koy bindal duñ ko bindal ñaar yoon duñu ko bindal ñetti yoon benn yoon rek lu baaxam moom la ñuy bind fukki yoon soo defee lu baax ci saa si dañ koy bind soo defee lu bon danañ la may diit bu yàgg danañ la may lu mat juróom benn waxtu ndax ci diggante bi balaa juróom benn waxtu yee jeex di nga tuub walla déet boo tuubut ñu bind ko benn yoon mu ne nag yonent mu ne gisuma ku gën a sàggan koo xam ne say benn benn dem na ba ëpp say fukk fukk de te nit am na ñu sàgganee noonu de ndax boo demee ci yi ñu jàng yépp seedeek joxe joxe e, tayleek yépp boo demee nit ñaa ngi ciy duwal ay naxante ay e, urujante yoo xam ne nit dana ci perte alalam wala nit utee ci alal yoo xam ne alal ju araam la loolu yëpp mi ngi am nit dana la tey la ñëw di la jël si tey la nga ne ko dat ba passé na fekk dat bi sax jotagul jaay naa la ma tey la woon <clears throat> yooyu yëpp nit ñaa koy jëflante ci seen biir de bon nag doomu aadama moo yàlla rek ñoo ko mën a seq moo tax yàlla rek moo amee mbiram keneen ameewut ay mbiram de bon yàlla ñu yàlla méngoo ci jàmm yàlla nañu yàlla méngoo ak yërmandeem <clears throat> wa ma ñëg tumaa ku nëbb na mu ko fa innahu nag moom aasimun aji bàkkaar la qalbuhu xolomam wallaahu yàlla alimun aji xam na mu ma taamaluun ci la ngeen jëf ko de di ngeen di def yépp nag yàlla nee na maa ngi koy xam de dara na buu ci moom fil ardi wala fi samaay lu nekk xam na ko de ma tasqutu min waraqatin illaa yaalamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabin mubinin dara réeru ko lu nekk xam na ko de toqanta xob wu ne xatt dag dag ci dagg ci kaw garab gi mu nekkoon di daanu xatt yooyu eh, daggin boobu sax yàlla yëg na ko de lillaahi aji nekk la ñeel yàlla maa fi samaawaati la nekk na ci asamaan juróom-ñaar wa maa ak nekk la nekk ci suufi juróom-ñaar de lépp yàllaa ko moom yàllaa moom li nekk ci asamaan juróom-ñaar yépp yàllaa moom li nga xam ne itam moo nekk ci suufi juróom-ñaar ak li nekk ci seen diggante yépp yàllaa ko moom de wayin tubdu ndem feeñal ngeen maa fi anfusikum la nekk na ci ay bakkan seen aw tuxfuuhu iki ngeen nëbbu ko yuxaasibkum yuxaasibkum dana dana solo leen bii ci moom allaahu yàlla de li nekk ci sa bakkan nga nëbbu ko defoo ko ak li nga xam ne def nga ko li nekk nga nëbbu defoo ko ak lu nëbbu nëbbu eh, yàlla nee na dana leen ko solo ëllëg ci àllaaxira de ba ko defee saxaaba yi ñëw ci yonent ne ko ah lii diis na di eh, buñ defee mu mu bind su suñ defut itam xanaa yéene ci suñu bakkan rek ñu bind loolu metti na loolu yonent bi ñun àttanuñ ko moom kay liñ def rek ba xam ne def nañ ko jeex na na na jëflanteeg ñun ci loolu waaye loo xam ne suñu bakkan rek la nekk mu ne daf ñu koy eh, eh, xisaab loolu metti na de yonent ne leen bu leen wax loolu wax leen li nga xam ne moom la jullit di wax de wax leen naa wa ata'na wax leen loolu rek waaye nekk bi naan dangeen di discuter li yàlla tëral loolu moom da ngeen di tardé seen bopp rek ndax kenn faalewu leen waaye rek wax leen ne naa wa ata'na bu ngeen ko waxee loolu loolu doy na leen de ah. fa yaxfiru te muy jégal li ma ne saaw jeexal ku mu soob ak jégalam de su ko defee nag yàlla dina leen baal ñi nga xam ne soob na ko mu jéggal leen yàlla dina leen jéggal yàlla ñu ci yàlla boole wa yuazibu te muy mbugal man yashaaw ku mu soob mbugalam kum neex itam mu mbugal de ndax moo moom nguuram moo moom yëfam lim def yëpp defu ko ci alali kenn ci ci yëfam la ko defee moo bind mindeefam yi lu ko neex mu def ci ay mindeefam ndax moo ko moom waaye nag ndax bu fekkoon ne mi ngi def ci kaw loo xam ne moomu ko bu boobaa tooñ day dooñ te yàlla du tooñ waaye nag li muy def yëpp yëfam la moo ko moom maa moom sama mbubb bu ma neexee ma maye maa moom sama yére bu ma neexee ma maye maa moom sama xaalis bu ma neexee ma maye kenn du la wax dara yaa ko moom nit lu moom mu def ci lu ko neex kenn du ko ci yedd waaye gannaa nag yow yaa li nga moom yëpp dafa am ku leen moom kooku itam lu ko neex mu def ci mbindeefam moo ko neex de moo tax mu ne yow azibo dana euh, ya ya fa yàq te ko soob ku ko soob mu jégal la say rëcc rëcc waaye itam bu ko neexee itam bu mbugal de wallaahu yàlla xadirun ajaatan la mu ala kulli ci lépp lëf lépp loo xam ne nag yàlla yàlla àttana lu nekk dara dara lottalu ko de amana dëggal na ar rasulu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa bi ma unzila la wasalef na ilayhi yem ci moom min rabbihi ci boromam ni ki alquran de yàlla yonent yàlla nee na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm na alquran ji nga xam ne yàlla wàcce na ko ci moom ndax booy oote dara te gëmoo ko kenn du la uyu bon nag ootekat li muy oote moo ko war a njëkk a gëm bu ko defee nag boo ootee nit ñi mën laa dëggal yàlla sax bala moo woote ci boppam njëkk naa wax ne shahidallahu annahu laa ilaha illa huwa yàlla moo njëkk a wax ne man yàlla kenn laa awma bokkaale bon yàlla moo njëkk a gëm boppam moo tax ci turam yi bokk na ci muuminu dëgg la wala déet turam yi bokk na ci al muuminu su ko defee nag li ngay oote yépp jëmee ci nit ñi na ko gëm bu baax a baax na ko gëm ci sa xol na nga ko gëm ci sa jëf na ko gëm ci sa jikko moo mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gëm na gëm na li yàlla wàcce ci moom ci alquran looloo tax gëm googu mu ko gëm moo mu ñemee oo nit ñi jëmee si leen ci alquran de ba ba ba ba melalee noonu yonent yàlla muhammad ne gëm na mu ne wal muminuuna jullit ñëpp itam gëm nañ ba eh, wal mu kullun képp ci ñoom jullit ñëpp amana gëm na billaahi ci yàlla wa malaayikatihi ak malaakaam yow kutubi bi ak téeram yére jullit ñëpp itam ànd nañu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm yàlla gëm malaaka yi gëm téere yi nga xam ne yàlla wàcce na ko wa rusulihi ak yonentam yonent yi nga xam ne yàlla wàcce na leen yépp jullit ñi gëm nañ leen jullit ñi la wax ne gëm nañ leen ñi dut jullit nag moom du leen neex ñu gëm bu leen neexee ñu gëm bu leen neexee ñu weddi seen bopp seen bopp la waaye nag jullit ñi moom alhamdulilah yàlla seddeel na leen ne ñoom gëm nañ di yonent yàlla muhammad gëm doon jullit jullit bi ak yonent bi ak yonent sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp seen darajaay départ mooy gëm yàlla darajaay départ yooyu nga xam ne moo gëm yàlla ñoom ñëpp ñoo ci bokk émére ñoo ci bokk émo su ko defee biir xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg la yonent amatu ci yonent ñëwatu gannaaw yonent yàlla muhammad waaye xeetu yonent bi itam yàlla garantil na ko ne ci lii yonent feeñ ci moom garantil na leen ne kuntum xayra ummatin waxu ngeen li naasi gannaaw noonu la leen yàlla bindee noonu la leen yàlla melal bon yiw ak mbaax du jóg ci ñoom mukk waxtu wu nekk yàlla ngi feeñal ci ñoom mbaax waxtu wu nekk yàlla ngi feeñal ci seen biir loo xam ne dina leen xëcc di leen dina leen ñemeloo dina leen oo jëmee leen ci lu baax waxtu wu nekk mi ngi feeñ ci xeetu yonent yàlla Muhammad yonent nee na suma gannaaw yonent amut waaye nag bo ragal naa bokk na ci sama ay xeet ñoo xam ne muhaddasuuna muhaddasuun mooy koo xam ne yàlla ngi koy yekkiwal ay gis-gis ay leer leer ay xam-xam yoo xam ne leer la bu tukkee ca yàlla su ko defee nag xam-xam boobu nga xam ne yàlla nga koy wakki eh, yankiiwal xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu mën cee dëgg di feeñal waxtu wu nekk lu baax di feeñal waxtu wu nekk xëcc nit ñi jëme leen ci yàlla ñu itam ñu ngi am waxtu wu nekk ndax noonu la yàlla xeetalee eh, teralee xeetu yonent yàlla muhammad demul rek xeetam sànku gannaawam dem na xeetam des fi nangu alquran xeetam des fi nangu julli xeetam des fi nangu aji màkka xeetam des fi nangu asaka xeetam des fi nangu oor di oor ñépp xeetam a ngi des ci biir xeetam de ndax yàllaa ko ko may ndax mooy xayrul ambiyaa yi bon moo amee moo jiite xayrul ummati xayrul ummati nag fekk mi ngi fi rek ngëneelu yàlla mbaaxe yàlla nekk di jubbanti xeet woowu moo tax waxtu nekk rek yàlla génne leen ñoo xam ne dañ leen di teg ci kaw yoon ñu bëgg leen ñu nangu leen loolu itam jaami yàlla bu sell diggan sellal digganteem ak yàlla xolam aju ci yàlla mu bëgg ko liggéeyal ko leer leeram leer yàlla mooy feeñ ci moom leer yàlla googu feeñ ci moom moom lay jaam yàlla yi di gis nangul ko toppul ko bëggu ko leer ak yàlla googu rek la de moo tax jullit ñi ñoog yonent yi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent wax na ci asxaab yi kan nujuumi bi ay ayihim ihtadaytum iqtadaytum ihtadaytum sama saxaaba yi ñi mel ni ay bidiw ku ngeen ci topp rek topp ngeen ci yoon loolu saxaabaam yi ñooy ñi amee dëgg la ñi ñi dundoon ak moom ñoom la ñu tuddee saxaaba waaye terewul ñi nga xam ne ñu ngi teg seen tànk ci tànki saxaaba yooyu itam mën nañoo am daraja boobu saxaaba yi am ne ñoom tamit mën nañu mën nañoo jubbanti nit ñi ku leen topp topp na yoonu njub yàlla feeñal na ci biir xet yonent ci ñu mel noonu ñu bëree bëri suñu sëriñ su mag seek euh, wàll yu yàlla yu tedd yeeg yépp yàlla feeñal na leen ci biir xeetu yonent yàlla muhammad ndax ñu nekk ay garantie yoo xam ne yi ngi fi rek réer du noot du noot xeetu yonent bi ndax nee ummati yi laa taj tamewu ala dalaala su ma xeet euh, du réer ñoom ñëpp duñ daje rek réer sànku benn yoon alors foog am na si ñoo bu ñëwee itam am na ñoo xam ne ñu ngi jubbanti de <coughs> laa nu farriqu fasalante fasalante wuñ bay naa xadin diggante kenn min rasul yi ci yonentam ya yonent yëpp ñoo bokk yem ci jullit ñi ñoom ñëpp lañ bokk gëm de moo tax yonent bu ne laa tufaddilu nii ala yunus ibnu mata bu leen ma gënal ci kaw yunus ibnu mata ma nga xam ne jën wi wanno wannoon na ko mu ne bu leen ma teg ci kawam de la bu leen ma bu leen ma bu leen ma tagg ba mu ëpp lii nasaraan yi taggee yonent yàlla Isaa ba ne doomi yàlla la bu leen ma teg foofu bu leen ma gën a itam ci kaw Yunus ibnu Matta benn yonent laa rek ci ci ñoom ñëpp mu ne moo tax loolu moo kuy gëm boo weddee benn boo weddee benn yonent rek weddi nga yonent yëpp boo gëmee denn yonent itam dëggu ci yow boo gëmee yonent yëpp nag yonent yàlla muhammad moo ci mujj moom la mujjee yónni soo ko gëmee gëm nga yonent yëpp waaye boo ko weddee itam weddi nga yonent yëpp nekk di leen yonent yi ngay wax ne ñoom nga topp boo gëmul yonent yàlla muhammad gëmoo leen ndax bu boobaa bu boobaa xamoo leen waaye li ci sa xel rek loolu ngay gëm li sa xel di portale li sa xel di xalaat ne loolu la loolu rek nga gëm de waaye gëmoo li nga xam ne moo bàyyi ko ci yàlla ñëw ci yow li bàyyi ko ci yàlla ñëw ci yow moo ne waman yabtari xayral islaami diinan falan yuqbala minhu ku topp lislaam bii yonent yàlla muhammad indi kooku amoo diine boo amut diine nag booy gëmoo benn yonent de laanu fare ko fa bay na ahadin diggante kenn min rusul yi ci yonentam yi yonent yëpp boo ko am ci ñun de yonent yëpp lañ bokk gëm gëm gëmandoo de waqaalu ñu wax ñoom jullit ñi ne samee naa ñun de dégg nañu mbiram yàlla waataanaa topp nañu ndigle yàlla de ñun de li ñu li yonent waxoon léegi wax leen samee naa waataanaa rek mu ne yu ñaa ngi noon di wax loolu de samee naa ñun de dégg nañu li nga ñu digal te nangu nañ ko de dégg ak nangu de waataanaa te itam dégg euh, euh, waataanaa te topp nañu de li ñuy wax daal mooy xufraan ak njëgal rek sa rabbana yow borom suuf sa njëgale rek la ñuy ñaan de utuñ leneen gëm nañ nangu nañ topp nañ amuñ dara lu ñuy def rek lu dul rekk ñaan sa njéggale yow yàlla yal nag ñu jéggal rabbana yow borom sunu way lay ka jëm na ci yowal masuru mujj waay ba te yépp nag ci yow rek lay mujj le àddinaak yépp di ci nit nit ñi ak mbindeef yi ci nekk yépp seen muj mooy ñu daje ci ñu daje ci sa kanam rek bés bi nga xam ne dogal nga daje boobu am de laa yukallifu laahu toggut yàlla nafsan bakkan illaa wusaa ndara kemm kàttanam yàlla tegut kenn lu mu de booy booy liggéeyal yàlla te bëgg liggéey bi sax bu ci teg sa bopp loo xam ne àttanoo ko ndax bëgg rek bu la bëgg xiir nga teg sa bopp loo xam ne àttanoo ko ndax boo tegee sa bopp loo xam ne àttanoo ko dangay yomba tayal damay da nga yomba yokkat te boo yokkatee rek yépp yàqu na bon nag booy sóobu ne dangay ngay jaamu ji yàlla ne da ngay topp yàlla yépp danga fàttaliku ne yàlla nee na laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaaha <coughs> defal rekk sa kemb kàttan ba ba ngay ba ba sa yaram di nangoo di miin <coughs> nit ñi am na ci ñuy julli guddi ay ràkk yu bari am na ñoo xam ne danañ julli sax baag téemé téeméeri rakka am na ñu ko daan julli naka noonu waaye nag diw daana julli téeméeri rakk rek naa ko julli bu ko teg sa bopp ndax yàlla tegu ko waaye nag da ngay jéem ba ba nga ci yàggee de jéemal benn ñaari rakka ñetti rakka ba ba ngay àggee fukki rakka ba ba nga koy mën a rombee yépp jéem moo la ci àggali waaye nag dinaa ko def par fors léegi bu yàggee da ngay yokkat te boo yokkatee rek li nga li nga liggéeyoon yëpp yàqu de bon nag yàlla mu ne laa yukallifu llaahu toggul yàlla nafsan bakkan illaa illaa wusaa ndara kem ba kàttanam de li nga àttan rek dala yàlla teg de lahaa yàlla na ko moom mbakkan boobu maa kasabat la mu fàggu wa alayha war na ko itam maa kasabat la mu fàggu de nit ku nekk nag li nga fàggu rek loolu la yàlla di jëflanteeg yow bu fekkee lu yiw la loolu yaa ko moom jeex na yàlla may na la ko ba yóbbu la aljanna ak itam su fekkee nag safaan la ba tey itam yaa ko enu sa bopp de rabbana yow borom sunu daa tuwaaxis naa yàlla bul mbugal ñu hmm? inna sinaa leen fàtte nañu de yow yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla bu ñu mbugal su fekkee def nañ loo xam ne fàtte ñu ko fàtte mo ñu ko tax def yalla na ñu ko yëgal te bañu ko jappé de inna sina dem fàtte nañu aw waxtana iki ñu moy euh iki ñu moy yonde yow yàlla yal na ñu jéggal buñu défé lo xamné ñuum ci rek moo ñu ko tax def wala fàtte mo ñu ko tax def yow yàlla yal na ñu jéggal lolu de rabbana yow borom sunu wala tahmil yàlla bul hen alee ci ñun isran ak diis de yow yàlla ñu ngi lay ñaan diis bi nga téwon xeet yi nga xamné ñoo jitu won diis woowu yàlla bu ñu ko teg de lim tegoon bani israila nga xam ne euh, lu métti la woon seen genn wàll alal la joxe asaka bu seen dara bu leen sobe taqee ci seen yére dañuy dagg place booba rek noonu lañ ko daan laabale loolu yu diis la yoo xam ne <coughs> yàlla tegoon na ko yenn xeet yi jiitu woon de rabbana yow borom sunu wala tuhammilna yàlla bul xen ñu maa laa taaqata lot déet kàttan lanaa ñëwee ñu bii ci moom de yow yàlla yàlla bu ñu xen lu ñu àttanut waafu yàlla nga jégal an naa ci ñun ay bàkkat sunu waxfir yàlla nga jégal lanaa ñeyal ñu yàlla nga ñu jégal suñuy rëcc-rëcc warxam naa yàlla nga njëram nu ante yow mawlaana yaay sang sunu de yow yaay su yaay suñuy sang de fansur naa yàlla nga dëxëral ñu yàlla nga dimbale ñu alal xaw mi ci nit ñi al kaafiri na ñu daway génn topp yàlla de Yan gàngoog yonente na sallallahu alayhi wa sallam ne bu ngeen jàngatee alxuraan ba aaxirul baqara na ngeen wax amiin ndax yàlla tër may nañu ci ay ñaan yoo xam ne ñaan yooyu boo demee ci bind ci téere ci firikati alxuraan yi nee na aaxiru suuratu baqara yàlla bind na ak loxoom njëkk mu bind dara ci ñaari junne at eh, la la la la ko bind dëxañ ko ca taxtal arsh mu ngi ko nëb mu ngi ko denc ca mu ngi ko nëbb ca suufi aras mu ne ba ko yàlla di wàcce foofu da ko génnee may ko julli nii moo tax waxtu woo ko jàngee rek na nga wax amiin te waxtu woo jàngee amana rasul guddi bala ngaa tëdd jàng ko muy weeru koor rek lu weeru koor boo bala ngaa tëdd boo julee gee ba pare nga jàng ko yàlla dina la bindal ne naafila nga guddi gi yépp may na la jaay ne naafila nga guddi gi yépp loolu yàlla may na ko kuy jàng ayatu kuy jàng amana rasulu de yonent sallallahu alayhi wa sallam ji pare bi mu ko jàngee ba pare mu ne yow yàlla maa ngi lay ñaan rabbana laa tuaaxisnaa in nasiinaa mu ne ko laa tuaaxisnaa in nasiinaa mu ne ko def naa ko aw axtaanaa mu ne ko def naa ko rabbana wala tuxamilnaa maa laa taaqata lanaa bihi mu ne ko def naa ko wax fu an naa mu ne def naa ko mu ne wax fi la naa mu ne def naa ko anta mawlaana fansurna alal qawmil kaafiriina koo xam ne nag li nga ko ñaan yépp may na la ko kooku mooy sa sang de moo tax mu ne ko anta yow mawlaana yaay sang sunu ah fansurna yal na nga dimbale nu alal qawmi ci nit ñaal kaafiriina ñu way génn topp yàlla de yal nag ñu dimbale ci kaw éefar yi yal nag ñu may buñ taseeg ñoom yàlla na ñu dimbale ci seen kaw buñ taseeg ñoom ci xeex ak xeex ak jaase xeex ak ngànnaay yow yàlla yàlla na ñu dimbalee su fekkee nag tase nañoo ñoom ci ji daal werante joxante ah bu boobaa itam ñu ngi lay ñaan yàlla nag ñu may lay yoo xam ne lay yu dëgër la ba nga xam ne dañ leen mën a noot ci lay de yàlla nag ñu dimbale ci seen kaw sóoratu <coughs> Aala Imran سورة آل عمران مدنية كيوب مدينة لا مئة آية نياري تيمير لا يرى بسم الله سوسنا ما سما يوخ كي تدبور الرحمن كي قول من دفن يبكي دنيا الرحمن كي أي قول يولي دارتا الآخرة ألف لام ميم ألف لام ميم الله يعلم ويعلم بمراده كي دمنا مم ci alif laam miim waaye terewul nak nee nañ bokk na ci kemtane alquran arab yi lay waxat ndax mu nek mujisa arab yi wax bu kawe te fasa am balaga loolu moy sen kemtane nit ko am balaga rek motax da nga gis nak xabila bo gis ci arab rek am nañ ben shaayir bo xamne dañ koy magal ndax suñu waxkat baa ngi noonu bon wax moo doon tiitaru arab yàlla buy wàcce moo gisa lëhéem jamono ba rek ci loolu lay wàcce moo gisa jamono yonent yàlla Muusa njabar moo xéemoon nit ñi ba yonent yàlla Muusa di ñëw lu mel ni njabar la indi jamono yonent yàlla Isaa feebar yu bari fajkat yi ñoo doon éem nit ñi moo tax ba ko yàlla di yónni jox ko njaba jox ko kéemtaan boo xam ne danañ ci gisee ne lii la euh, euh, dañ danañ xamee ne lii du loolu yonent Yàlla Muhammad tam bi koy indi mu ngi koy indil moo gise mooy moo gisetu alquran ba pare bi mu koy indee jalgati arab yi dugal ci alquran ay baat yoo xam ne arab yi ci seen bopp mënuñ xam de bu ñuy jàng baax si ci alif lam mim, duñ xam lan la mënuñ koo xam de niñ koy bindee bu la neexee nga ne alam zalikal kitaabu bu boobaa jàng nga ko waaye xamoo li nga jàng lan la am na ñoo xam ne itam dañ koy jàng alif laam miim am na ñoo xam ne alam alam alam rek la wax foog ne alam rek la fekk du noonu de loolu yëpp yàlla nga koy def ngir gettil arab yi ne seen wax boobu ngeen di tiitaroo di ko màggee dana leen ci indi loo xam ne du ngeen ko xam mukk loolu bo bokk na ci ci kéemtaani euh, euh, euh, baat yi nga xam ne yàlla nga koy dugal ci alquran de mu ne alif laam miim alif laam miim allahu yàlla alam mooy xam muraad yi ci lum na moom ci alif laam miim alif laam miim moom nag terewul nag boroom xam-xam yi jamono bi yeeg gis-gis yeeg ñu ngi ciy dugg ci ay nattale ci ay yoo xam ne seeni i xalaat moo leen ci àggali ci ay yoo xam ne seen i nattaleeg seen i euh, euh, euh, lënkale mbir yi moo leen ci àggale ba ñuy wax naan lii lay firi lii lay firi lii lay firi allahu yàlla laa ilaha déet benn buur ba yow jaamu ci dëgg yi laa woon moom alxayu kale aji dund alqayumu ko daa ji taxawee lépp loo xam ne lu am la yépp yàllaa ko taxawee de nasdala wàcc na mu aleyka ci yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam alkitaaba alquran bil xaqi bi mu aji ràmboo dëgg de yàlla moo wàcce ci yow alquran ji moom te alquran ji alquran yi dëgg la de wax nañ ne ñetti laaye ci alquran ci la ismullahi alazam nekk benn bi mooy bii nekk ci suratu baqara mooy mooy bii nekk nii الله لا اله الا هو الحي القيوم جطاها امنا يتم ايه الحي القيوم من نيتل بي من تي سوره البقره يتم بولي ميدام كو فك موم يتم مونغي واخني الحي القيوم نيت لاي ييب يونس الله محمد من تي لا اسم الله لازم نك نزل وجهنا عليك الشيء والكتاب القرآن مصدقا آه، بالحق شي دق بحقي مبيد اجي لامبو دق مصدقا مبيد مموي اجي دق اللي بين يديه لجيت ونكو شي اي تيري ني دمينك التوراة الانجيل وانزل وجهنا مو التوراة التوراة والانجيل الانجيل من قبل شي يكو وجهك القرآن دي يكو وجهك القرآن يالله وجهنا اي تيري يبري بوكنا شي يوم وجه التوراة الانجيل دي Ah, li naas ñeel nit ñi de wàcc na téere yooyu yëpp mu ñeel nit ñi de saaru yi nag ba ci juróom-ñaar fukki daay ci kanam ji daal boo xam ne amoon na diggante yonent yàlla muhammad ak ak eh, nasaraan yi nasaraanu najaraan ñëw madina gane ci yonent ngir wax ak moom ci mbir yi diine bañ ñëwee ci ñëw nasaraanu bani najaraan ñu ñëw ba ñuy ñaw nekk nañ juróom ña nekk nañ juróom ñaar fukki nit yoo xam ne dañoo ñëw ay sang sang juróom ñaar fukki sang yooyu yépp am na ci ñoo xam ne am na ci ñett ñoo xam ne ñooy seeni sang ki ci gën a feeñ ñett ñooñu ki ci gën a feeñ ñu ngi ko daan waxe ay xam noonu la tuddoon keneen ki ñu ko daan tuddee aqibu moom itamit ci sang yi la woon am na ci kenn koo xam ne ñu ngi ko daan tuddee euh, ayham ñooñu ñëpp ay sang lañ yoo xam ne ñëwoon nañ ci délégation boobu ñëwoon seet si yonent bi sallallahu alayhi wa am na ci ku ñu doon wax abu xaarisata abu xaarisata moom al ibnu alxamata jullit la éefar euh, arab la woon bu doonutoon tubaab arab la woon waaye nag duggoon na ci diine euh, tubaab yi ba mu ko defee tubaab yi fonk ko lool di ko jox ay addiya di ko neexal tabaxal ko ay kanisa jox ko ay alal ju bëree bëree bari ba nga xam ne ba mu déggee ne yonent ñëw na mu ànd ak dara ci moom ci tubaab yooyu ñëw ne dañuy wax seeg yonent bi ñëwee moom itam mi ngi ànd ak rakkam ah moo ko rakkam ñu ànd di doxantu ci seen fas moom fasam dal di fakkatalu mu ne ko mu ne yal na yàlla alak yal na ko yàlla alak mu ne ko koo ci jublu mu ne ko yonent mu ne ko bul wax loolu yow mii yaa war a alku yonent yàlla muhammad kii mooy mu ak yonent yi moom la yàlla yónni amut beneen yonent gannaawam de mu ne ko lu tax nag toppoo ko mu ne ko bu ma topp bu ma ko toppee bon ñii liñ may do liñ may jox dañ koy dagg bon nag maslaa boobu rek laay sàmm su ma digganteeg yi ma ñi ma àndal de waaye xam naa ne moo yonent dëgg bi de ba mu ñëwee nag ñëw ci yonent fekk waxtu tàkkusaan mu ngi julli ñu ñëw ci jàkka yonent bi dugg ba ñëwee toog ba nga xam ne waxtu jot na ñu ne dañoo bëgg a wax ak yonente sallallahu alayhi wa sallam dañoo bëgg a julli yonente may leen ci biir jumaam ñu julli ba ñuy julli jublu seen seen jubluwaay ñoom bañ jub bañ jullee ba pare julli ba pare dal ne yonente dama dañoo ñëw nag ngir waxtaan seeg yow dañoo ñëw nag yow yonente ngir waxtaan seeg yow li ñuy waxtaan ak yow yonente ne leen sallallahu alayhi wa sallam lu leen teree lu tax yéen léeg-léeg ngeen ne yalla, isaa yàlla la léeg-léeg ngeen ne doomi yàlla la léeg-léeg ngeen ne saalisu salisu e, salaasatin la lu tax ngeen di wax loolu ñu ne ko suñ waxul loolu lu ñuy wax su fekkee waxuñ ne du doomi yàlla bon kuy baayam amut su fekkee wax nañ ne moo yàlla bon loolu la su fekk su fekkee wax nañ ne doomi yàlla la loolu la ndax amul baay bu ko yur su fekkee wax nañ ne mooy yàlla gis nañ ko yuxyil mawta danañ dekkal ku dee wa yan fi tayri fa yatir fi tiini fa yatir gis nañ ko muy def loolu gis nañ ko muy faj aji feebar loolu yëpp gis nañ ko ci moom mu di ko def bon nag bu ñu waxul ne yàlla la te yàlla loolu def bon lu ñuy wax gis nañ ne itam ñett yàlla rek ñett yàlla yooyu ñett yàlla yooyu ñett yàlla moo nekk bu ñu dàqee benn yàlla bu boobaa itam bu ñu ko dàqee leneen lu ñuy def palaasam duñ ko am bon nag loolu ñuy wax yëpp lu ñuy wax yooyu yëpp dëgg la ci ñoom waaye loolu yëpp boo demee seen xelaat yi bopp rek la doonul loo xam ne téere dafa wàcc ci moom jàngal leen ko seen xelaat la seen seen yëfi bopp rek la moo tax yàlla di wax sax ñaare ne ñoom yooyu wax ne ñoom la ñuy jaamu sax jaamu yooyu ah bal ittaba alladina waa ahwaahum seen bànneexi bakkan rek lañu topp de li leen seen bakkan yi porté leen rek loolu lañ topp de ba mu ko defee yonent ne leen tuub leen dugg leen ci diine ñu ne ko ñun tuub nañ boobu ñëwagoo mu ne bon nag ah yonent ne leen waxu leen dëgg de tuubu leen de mu ne ñu ne ko léegi nag gannaaw yonent gannaaw loolu mooy Adama mooy Isa mooy doomu yàlla mooy yàlla mooy saalisu salaasatin bu buñ waxul loolu lu ñu war a wax yonent wax nangu leen ne yàlla kenn la de yonent ne leen xamu leen ne doom ju nekk dafa war a niru ba xam ngeen ne doom ju nekk dafa dafa a niru baayam ñu ne ko waaw waaw mu ne xamu leen ne yàlla dafay dee dafay dund te du dee mukk ñu ne ko xam nañ loolu mu ne leen Isaa dee na xamu leen ne doom ju nekk yaayam daf koy ëmb ci biiram ay weer ñu ne xam nañ loolu mu ne Isaa yàlla daf koo ëmb nit ku ne mbindeef mu nekk dafay lekk ak a naan ah, te yàlla kenn mu ne te yàlla kenn ëmb ko yàlla rek la doom bu nekk dafay lekk di naan yaayam daf koy jox muy lekk ka naan di tojal ndax loolu yàlla dina ko def ñu ne ko yàlla du ko def mu ne gannaaw yàlla du def yooyu yëpp bon Isa du yàlla de yàlla yàlla la moom rek ay yàlla de keneen ku dul moom du yàlla de loolu nag li ko ci fii ba ci juróom-ñaar fukki laaye ci kanam ci ci warante woowu rek la ñuy de ba ba ñuy àgg bëgg ñaanalante ba ñuy àgg nag bëgg a ñaanalante booba nag lañ door a dellu gannaaw de wa anzala tam wàcce al furqaan al furqaan téere yim wàcce yépp furqaan la al quraan la tawraat la linjiil la furqaan la ndax dafay fastale diggante dëgg ak nar waa inna alladina naka ñaaña kafaru wét nu ñu bi ayaati ci al quraan yàlla ji lahum war na ci ñoom azabun bugal shadidun mu di aji tat wallahu yàlla azizun aji noonu la mu ci nguuram yoo intiqaman borom ak fayu la de yàlla moomu ngeen di fontoo nag a ngi def lu leen neex di wax lu leen neex waaye na ngeen xam ne yàlla moom moom nguuram te moo ci not te kenn du ko dimbale de te yàlla moomu nag dafay fayu de dana fayu ci yéen de inna allaha naka yàlla laa yaxfa nëbbu nëbbuhut alay ci moom shay'un dara yàlla dara nëbbu ko ak lu mën ci doon lu mën a rëy ak lu mën a tuuti yàlla dara nëbbu ko de fil ardi ci suuf wala fi samaa yi du tàggeen ci asamaan juróom-ñaar lu nekk ci diggante asamaan ak suuf ak ci seen kaw ak yépp yàlla xam na ko de woo moom yàlla moomu lazi mooy buur ba nga xam ne yu sabirukum dana mu nataal leen fil arhami ci xuru bi nday seen de yàlla moomu moo leen di nataal ci seen biiri ndey kay fee saaw na ko soobee ko de ne nu ko neex rek ngeen mel ci seen biiri ndey yàlla moo leen di nataale noonu de laa ilaha déet benn buur ba yow jàmm ci dëgg illaa woo ndare moom alaas yi su ma aji not ci nguuram alxaq yow ma aji xereñ ci njeexteefam de oo moom yàlla moomu allazi mooy buur ba nga xam ne anzala wasal naa lekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al kitaaba téere ba minhu aji nekk la ci téere boobu aayaatun ay laaya muhkamaatun yu de yuñ xereñee de téere boobu nag am na ci laaya yoo xam ne laaya yu yàlla xereñee ak tëralam la alquran yépp yàlla tëral xëral na ak ak ak tëralam ndax tilka ayatun muhkamatun ayatun muhkamatun wax na alif laam kitaabun uhkimat ayatuhu wax na ko ci alquran kitaabun uhkimat ayatuhu bon nag lépp alquran yàlla daf koo xereñee tëral ko ci xereñ de waaye nag am na ci yoo xam ne dafa gën a feeñ am na ci yoo xam ne bala koo xam ala fokk nga xelaat am na ci yoo xam ne bala nga koo xam nag foo nga gis jàngalekat mu mën koo jàngal waaye nag am na yoo xam ne moom ba badaahatan boo ko déggee rek këccët nga koy xam ci saa si xul wallaahu ahadun amul soxlawoo kenn jàngal la ko ñëpp xam nañ ko ku ko dégg rek xam ko de ah, waaye nag ah, ah, yàlla mi nga xam ne mooy fasale diggante ba bëccëg loolu itam lu sew la de ala fokk laaj seetantal xam loolu xam yàlla koy def de bu ko defee rek alquran noonu la mel. فيتبعون العزيز مواجه نوتي غورم الحكيم مواجه خيرن تي نيفتفم هو موم يالا لي موي كان خامني انزل واتنا عليك الكتاب القران منه اجي نك القران ايات اي ايه muhkamaatun yu ñu xeweñee ak tërëb ak tërëlëm de yoo xam ne dañuy tegtale rek ci saa si boo koy jàng rek xam li muy tegtale qul wallahu ahadun ku nekk xam ne li muy tegtale yàlla kenn la loolu ñëpp xam nañ ko de ah, waaye nag am na yeneen yoo xam ne nag bala nga koo xam comme ni ma leen waxee foog nga jaar ci de mun na ñoom ayatul muhkamaat yooyu umul kitaab yi ñooy ndari ñooy ndey ndey téere bi mooy eh, aaya yooyu xam ne ci la alquran yëpp sukkandiku ngir tasaaroo de woo xuraa ak yeneen mutashaabihaat yu de way duggulante yu de way niroo am na ci laaya yoo xam ne nag laaya yu niroo la nga xam ne ah, nga xam ne amu amut eh, eh, leer gi nga xam ne baatu qul wallahu ahadun am na ko qul wallahu ahadun moom amul werante am na laa yoo xam ne nag bala nga koo xam nag moom ala foog nga eh, indi dugg ak gëstu ak xam moo tax ci ngay xamee ne alxuraan téere bu bàyyiwul net ne ko sukkandikul rek nangul rek déedéet nangul d'accord waaye boo nangoo ba pare gëm nag ci kaw gëm googu na nga jëfandikoo sa xel li nga mun a régler ci sa xel nga régler ko li nga mun a dégg ci sa xel nga dégg ko nga jëfandikoo sa xel daal waaye bul neenal sa xel de comme li nga xamee ne boo demee ci yeneen diine yi dañ day wax ne doole déedéet loolu lu ñuy dégg dañ koy nangu noonu rek am na yeneen diine yi waxee loolu de loolu du lu ñuy dégg nangu ko rek mu jeex bu ko defee nag léegi itam alquran moom waxu la loolu de indil na la al téere boo xam ne bu la neexee nga xelaat ci bu la neexee nga gëstu ci bu la neexee nga nangu su la neexee itam nga werante am taxawaay boo xam ne taxawaayu lii dégguma ko loolu yépp aayut loo déggu toppoo ko kenn du la ci topp dara parce que déggoo ko xamoo ko waaye nag loo dégg nag xam ko bañ koo topp bu boobaa foofu la perte di nekkee de mun na ñoom umul kitaab yi ñooy ndax yi téere bi woo xolaak yeneen mutashabihat ñu la way niroo fa amma alladina laa ñaaña fi qulubihim aji nekk la ci xol seen zaygun ak jeng ñi nga xam na nag ñoom dañoo jeng bëgguñ dara sotti loo wax rek ñu la ah waaye sëñ waaye nag ah ah di la wer rek di xëccoo rek loolu am na yoo xam ne seen xel yi foofu la jubu ci alquran de di sikk ka di weranteeka di laaj ka di gën a xóotala ka yoo xam ne wóor na la lii doo ci àgg ci benn résultat doo ko mën a xam li nga xam ne yàlla tëral na ko bëggut nga àgg ci résultat doo ci àgg ci résultat mukk da ngay werante rek moo tax waxoon naa leen keroog ne doomu aadama question am questionnement am kenn mënu koo tontu ndax jamono bu nekk rek ak question bu ñu réewut ak jamono bële su ko defee dañ fiy nekk rek di di wax rek waaye boo buggee am question téere réponse bu dëggu téere bi rek moo la ko mën a jox de ndax moo làmboo dëgg bi nga xam ne moom la yàlla wàcce te yàlla moo ciy wax ak yow keneen waxu ceeg yow yonent waxu ceeg yow daf lay jottali waxi yàlla malaaka yi waxuñook ak yow dañ lay jottali waxi yàlla sëriñ si seen bopp waxuñoo ak yow dañ lay jottali waxi yàlla loolu moo tax wax boobu moo moo moo mën a dëggu de wax bu jógee foofu mooy wax bi nga xam ne mën naa dëggu de yeneen yi yépp nag ay xel rek la yàlla ayewu la nag sa xel jëfee ko nu la neex de fa ma lazina ndaal ñaa ña fi qulubi ma ji nekk rek ci xol seen zaygun ak jàng فيتبعون لن يطب ما تشابه للنتنا منه شي موم ابتغاء الفتنة غير ساكو فتنة غير ذاك بيرانتا بغنا بيرانتا ابتغاء تاويلي اك ندم كوي فيري <coughs> ني ني داني فيري يوي دنت يوي نك شال قران بغو فيري لول ييب دنج كو غير آه، قوتل قم قم وخ léeg-léeg nga taseeg ñoo xam ne ci internet bi xéexée doo xam ñi ngay taseet lan la lu nekk rek ñu ne dañ la ko bëgg a firil te mënuñ la firil dara dañ lay lëndëmalal rek wa maa yaalamu xam ci taawilahu taawilam illa allahu ndara yàlla yooyu ñu bëgg a taawil ñooyu <coughs> yàlla rek xam taawilam waaye du ñoom de waraasixuuna ak way sax ña fil ilmi ci xam-xam ñi nga xam ne nag yàlla may na leen dëgër nañ ci xam-xam ñooñu itam mën nañoo joxe taawil ci laay yooyu nga xam ne laaya yu jaxasoo la yu borom xam-xam yi mën nañ koo firi waaye nag ñoom it niñ koy firee mooy lan yaquluuna danañu wax ne rabba amanna ñun de dëggal nañu bii ci moom ñun de gëm nañ ne yépp ci yàlla la bàyyi ko de min indi rabbina kullun képp ci yooyu yaa laaya mutashaabih ak gayra mutashaabih kullun képp ci yooyu yépp min indi rabbina tukkee na ci borom sunu de rabbanaa yow borom sunu min indi rabbina tukkee na ci borom sunu de wa maa yadakkaru waaye waadu tiit illaa ulul albaabi ndara borom xel yu sell yi de borom xel yu sell yi rek nag ñoo mën a dégg wax yooyu nga xam ne moom la yàlla di wax de rabbana yow borom sunu laa tuzigh yàlla bul jàngal xuluubanaa ay xol sunu yow yàlla yàlla bul jàngal suñuy xol yóbbu ko foo xam ne dañuy topp suñu bànneexi bakkan rek yàlla bu ñu def loolu de baada isa daytanaa ganaaw jubal saak ñun gannaaw bu ñu gannaaw boo ñu jubalee yàlla boo ñu sànni yàlla boo ñu wocci de wahab yàlla nga may danaa ñeel ñu min da dun ko tukkee ci yow rahmatan yërmande rahmatan ak saxal goo xam ne danañu saxal ci diine de e innaka naka yow yàlla anta yow alwahaabu yaay ji maye de <coughs> yooyu la ñuy ñaan yàlla rabbana yow borom sunu innaka naka yow jaamiwu naasi yaay aji dajale nit ñi li yow min ci bés daa reba doot sikki fii ci moom de yow yàlla mi nga xam ne bés a ngi ñëw danga dajale sa jaam yépp ci sa kanam ku nekk da nga wéet ak moom wax ak moom te interprète du jaar sa diggante ak moom bés boobu yow yàlla ñu ngi lay ñaan yow yàlla yal na ñu musal de innaka naka yow anta yow alwahaabu yaay ji maye de rabbanaa yow borom sunu innaka naka yow jaam yow naasi yaay aj yi dajale nit ñi li yow min ci bés daara ba des ci fii ci moom inna laa naka yàlla laa yoxlifu ti mu almiyaada de loolu leen yàlla dahal yépp dangeen ko gis de ndax yàlla du doxal ba pare muy dañ de inna dina naka ñaa ña kafaru weddi nañu weddikat yi na nga xam ne gëmuñ lan tourniya jëriñ tit lañ lan tourniya jañ tit leen am wàlluhum ay jur seen wala walaaduhum du càggan ay doom seen mi na laay ci yàlla ci mbugalam yàlla seen dara de ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla nag gëmuñ mu ne ñooñu ñoom nañ xam ne loolu ñuy dajale ci àddina bi yépp ci ay doomam ak ci ay doom ak i xaral ëllëg ci àllaaxira du leen jëriñ dara uda boo ulaayika ñoo ñële gaa yi doon def loolu comme ñoom waquudu neer yi ñooy mattam safara de ñi gëmoon àddina rek la ñu rey ci seen bopp nañ xam ne loolu ñuy dajale yépp ak ñoom ñooy mattam safara de ñooñu baax seen ka de bi aali firaw na mi ngi mi ngi mel ni baax ab na de والذين اك من قبل يوم وي نيك لا نيو سي نيك فراونا كذبوا ودي نيو باياتنا تي اي كاو تي اي كاو فاخذهم الله هلك لين يالا بذنوبهم تي سبب ساي باكات سند والله يالا شديد العقاب تي مبول لبود ان قل وخال يوم محمد صلى الله عليه وسلم للذين نياني كفروا ودي نيو تي يهودي ستغلبون قد سنان نوتف لين وتحشرون قد نام نغف ilaa jahannama ngeen jahanna ngeen jëm jahannama wa bi sa bonal mihaadu lal ba ndem jahannama de yéen xeefar yi yëhoot xeefar yi nga xam ne gëmu leen yàlla na ngeen xam ne yéen ñëpp yàlla dana leen noot te yàlla dina leen dekkal te yàlla dina leen fangi yéen ñëpp jëmee leen jahannama de lal boo xam ne nag jahannama la yàlla mu ne lal boobu bon na de xat kaana nekkoon na lakum ñaa leen ayatun ayatun xalam fii fii atay nii ci ñaari kuré iltaqa iltaqataa yooyu daje de kéemtaan nekk nekkoon na ci ñaari kuré yoo xam ne daje woon nañ mooy kuré yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mu badrin ba muy dem badar ànd ak ñett téeméeri ak fukk yoo xam ne amuñ amuñ waruwaay amuñ jaase amuñ dara amuñ xeexuwaay amuñ fas ak kuré boo xam ne ña nga beew bew beew ñu am lu nekk bañ desee ñoom ñaar keroog yàlla génn ne kéemtaanam de ndax kuré bu ndaw boobu nga xam ne amutoon dara moo dàq kuré ba de de mu ne loolu kéemtaanam na ci de tuqaatil danañu qaatil danañu rayante fi sabilillahi ci yoonu yàlla de kuréel bu ndaw bi nga xam ne amul doole ñoom ñu ngi jihaat fi sabilillahi wa uxra ak beneen kuréel boo xam ne kuréel bu beew la kaafiratun bu dee aji wéddi yàlla taranahum ñu gis leen mislayem ñu ñaari kem seen de mu ne kuréel boo xam ne kuréel bi nga xam ne gëmul yàlla waaye yàlla daf leen di woon bu ñuy xool kuréel yonent ci yàlla Muhammad bi daf leen di bëril ci seen bët yi ba mel ni ñoo leen ëpp loolu yëpp yàllaa ngi sànni ci seen xol yi ay ragal su ko defee nyom nyep ñëpp ku ci nekk yaa ngi gis ne morom rek nga ëpp li nga doon <coughs> wallahu yàlla ra yàllaay ni gis ak bët gis ak jàkkaarloo de ñoom ñu ngi gis saxaaba yi ne saxaaba yi bëri nañ ba ëpp saxaaba yi itam ñu ngi leen di gis ne nañ ba ëpp de loolu yëpp yàlla leen ko woon ngir ay de wallahu yàlla yu ayidu dana mu daharal bi nasrihi ci ndimbalam man yashaaw ñeel ku ko soob ak ndimbalam de yàlla nak moo amee ndimbalam ku ko neex la koy def de inna fi dalika nakaa ji nekk da ci loolu la ibratan xalam li wër lab yu seen ya juyi na rafetaleeb na li naas ci yenn nit ñi xobu shahawaati sopp sopp topp ay bànneexi bakkan yàlla rafetal na ci nit ñi ñu bëgg ay bànneex laay boobu nag doon wax ci diggante ñaari kuréel yi daje yahood yi yonent gannaaw boo xam ne jógee na Uhud dafa yónnee ci ñoom ne Banu Quraysata ne nañ génn mi ngi ñëw ci ñoom yow ya ne ah yonentu dofi dofi arab yooyu mu taseet moo moo tax mu foog ne am na doole bés bu taseeg bés bu taseeg ñun dana xam ne ah, mu ngi door a taseeg ay mbër de ay jàmbaar yu mën a xeex de waaye waaye nag arab yooyu mu tasee rek moo tax ñu foog ne mu moo tax mu foog ne mën na ci ñun dara waaye na ñëw bu ñëwee dana xam de moo tax yàlla ne leen qul lillazina kafaru na waxal yahud yooyu di wax loolu ne daañu leen nodde te dinaa leen mag ñu yóbbu safara de inna fi daalika naka yi nekk la ci loolu la ibratan xalam di ulil absaar ñeer waroon xel yu sell yi de juy na rafetaleef na di naas ñeel nit ñi bu shahawaat yi bëgg la sopp la sopp na ko seen i bakkan de nit ñi la seen i bakkan sopp rek loolu lañ bëgg da mina nisaay ci loolu moom jigéen la jigéen la bëgg nañ jigéen wa wal banina ak doom yu góor wal xanaatiire ak xalal ju bëri mu xantaras te judee juñ dajale bëgg alal yoo xam ne bari ñuy jóor rek jóor ci banque yeeg jóor seen i kër ak yëpp bëgg nañ ko de mina zahabi ci laala moom wurus la wal fiddati ak xaalis wal xayli ak ki naar yu góor al musawamati yi di way rafet yooyu yëpp boo demee moom la nit ñi bëgg de bëgg nañ wurus bëgg nañ xaalis bëgg nañu ay naar góor wa al anaami ak ay judikat yu bëree bari gileem yeeg bay yeeg ah, xar yi yëpp bëgg nañ leen de wal xarsi ak mbay loolu itam ay ba euh, yëpp doomu aadama yi bëgg nañ ko de buur ne zalika loolu lee mataawul xayaati dunya mooy yóbbalëb dundab àddina de wallaahu yàlla indahu aji nekk la fa moom xusnal ma abi rafet ak dellu de mu ne laay jàngi jàngal laay jàngi jàngale doomu aadama li nga xam ne bëgg na ko doomu aadama zahab la bëgg zahab mi ngi bàyyi ko ci zahabu ji firi fasanti ko ah, ak ak fidda fidda itam mooy fiwi du tasaaroo nit ko am alal alal alal yàgg rek alal yi tasaaroo urus fi dem yépp wal xayli ak naari góor naari góor yi jàmbaar ju dee rek ci kaw naari góor la dee de loolu nit ñi bëgg yëpp baaxul ci ñoom de allahumma salli ala sayyidina